مني الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود الكدري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي طالبي بكي جلدي يب الشيخ محمد المنتخى ميلين دي فين مننه xam ngeen ne bis bu tedd bu màgg boobu nga xam ne mooy ci fan juróom-ñett yi nga xam ne ci lañ jëm bis boobu nag xam ngeen ne saa soo xamee ni ñu ngi koy jub di ko waajal ñaari sëriñ bi dana am kàddu yoo xam ne da koy jëmale ci mboolem taalib yi yëpp dema ko ci mboolem juddit yi yëpp soññi fàttali sant ñetti yëf yooyu mooy li nga xam ne saa su ne moom lay jëmale ci bokk taalib yi noo ngi ñaan bokk yëpp ñu déglu taataan te xam ne lépp lu bàyyikoo ci moom rek jëm si ci nun loolu mi ngi mel ni taw bii di door noppi ci nun noonu la la demee njëriñ la noonu la demee ci ñëpp kon noo ngi koy déglu moom mi ngi gën a nuyu mbooloo mi ñëpp ñi ngi fas yéene teewlu ni ko Moustapha Diatra waxe fan yi ñuy jublu ba ci fukki fan yi ak juróom-ñett nañ fas yéene teewlu bu baax fas yéene jëfe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 jàng ñetti kaamil boo ko munul benn ba ci looman mën nga gën nga jublu ci gën a yeesal sa jaayanteeg sëriñ bi gën a fas yéene naa def ndigalam ci santale ko borom loolu moo ci jiitu fan yii yëpp nag itam. fan yii yëpp nag itam. nu gën cee góorgóorlu. nu def suñu it yëpp. def suñu yitte yëpp. muy suñu borom. suñu yëngutu yëpp itam. suñu yëngutu yëpp nu jëmee ko rek. nu ci jàng alquran ci jàng alquran. feek bis ba sunu yitte yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ku man na nga def sa yitte yëpp na nga ci jiital jàng alxuraan jàng xasida ñi nga xam ne dañuy kuréel nañ ca nekk seen kem kattan ñiy durus nañ ca nekk seen kem kattan lépp lépp lu ñu jubloo ko sant sëriñ santale ko sëriñ bi ak sant ak sant jëmmi sëriñ bi ci boppam sant ko jëmmi mu jooju moom sëriñ bi loolu mooy li ci gën am solo loolu li ci dolli ko nag ñun ñëpp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 loolu lu ci munta ñàkk la ndax teggin mooy li gën lépp loolu alhamdulilahi rabbil alamin ku ne xam na ko ci nituk sëriñ bi moom teggin kon nanu maase nun ñëpp di ko def jëfandikoo ci suñu diggante di ko teeroo it gan ñi la dolli ko ci lool nag nañ ko doon waxee ci gannaaw rek or mooy dëkk bi or dëkk bi na ko ñëpp na ko ñëpp bàyyi xel te xam ne dara jiituwu ko or dëkk bi mooy ormal sëriñ bi ku ormaalu dëkk bi ormaalu sëriñ bi kon nag ormay dëkk bi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ci waxtu mu mën a doon rawatina fan yii sàmm dëkk bi dara jiituwu ca ndaw ñi ndax ñoom ñooy yaakaar yi ëllëg yi te it lu ñu mën a yëngutu yëngutu ci sëriñ bi moo ko gën ci ñoom kon ñoom ñoo war a def seen bopp sax kon ñoom ñoo war a def seen bopp sax ñoom ñoo war a ndaw yi ñoo war a sàmm dëkk bi lu fi sëñ bi bëggut lu ñu fi gis war nañ caa def seen yitte te boole kook yar ak teggin ñoom ndaw ñi ñoo war a sàmm dëkk bi ci lépp mën na maa yem foofu Cheikh Bass eggale li ci des li ma ta wax lépp jox nañ ko ndigal mu wax ko nañ góor gi kër góorgóorlu ci cant gi rek góorgóorlu ci sàmm orma ji loolu rek la bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkin ci ndigalul sëriñ bi ci kàddu yu yi nga xam ne yëkkati na ko léegi muy kàddu yoo xam ne matale na sëkk te jot na sëkk kon liñ ci dolliwaat tuuti mooy fàttali rek bis bi ni ko sëriñ bi waxe léegi Euh, altine fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar moom lay doon incha allah mooy bis bi nga xam ni ci la ñu war a amal màggal gi kon ak sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal ñëpp ginnaaw bu mu ko yëgalee ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi di njëbooru sëriñ Tuubaa gépp ak mboolem ñi nga xam ne seen maam ya sëriñ Tuubaa moo defaroon bayu ci kenn ba wàcc ci taalib yi nga xam ne ñoo seenu njaboot. nga xam ne bis bii ñoo koy def ngir jëfe ndigalu sëriñ Touba ginnaaw bu loolu jàll it mi ngi koy yëgal di fàttali ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal lislaam ji yëpp kon Serigne bi nee na mi ngi leen koy fàttali fas ko yéene ànd ni mu ko daa àndee ak di fàttali tuuti rek na ci bis bii nga xam ne mooy bisu màggal gi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom. ndax mooy bis bi nga xam ne bu Serigne Touba demutoon ci géej gi kon tey kenn du gore kenn du moom sa bopp kon bis bii moo ñu tax a jot suñu bopp kon Serigne bii ne mi ngi koy fàttali ñëpp di xam xamle nit yàlla yëpp bis bi nga xam ne ci la leen euh, suñ borom tegum nattu walla ca sabab sa taxaw mu teg leen ko li ci ëpp ci la koy jeexal boo xoolee yonent yàlla Yuusuf am na tom mi ngi tàmbaloon ci gént inni raaytu ahada ashara kawkaban wa samsa wal xamara raaytuhum li saajidin waaye ba natu bay jeexit mi ngi jeex ci gént ci firi gént suñu borom doo ko xamal xam-xamu firi gént wa qaala maliku iitooni bihi falammaa jaahu rasul qaala rji ila rabbika fasalhu ma baalu niswati lati qataada aydiyahunna ba ci mujj ga mu wax ne qaala ij'alni ala xasaa'ini al-ardi inni xafisun alim kon foofu la nattu bu jeexee boo xe boo xoolee yonent yàlla Moussa bi mu gënee àdduna wa awxaynaa ilaa ummi Moussa an ardihi fa izaa xifti alayhi fa alqihi fi l-yam waaye ba nattu bi tàmm da ko wax ne ko gi waaye bi nattu bi jeexit mooy bi nga xam ne Firawna sonal na ko. fa atbaahum firaawnu wa junuuduhu baxyan wa adwan xataa izaa adrakahu alxaraqu qaala aamantu annahu laa ilaaha illa llazii aamana bihi banuu Israa'iil rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam itam bi mi nga tàmbale woon ca Makka ca Kaaba ga muy jule yéefar yi di ko fekk di ko fitnaal waaye bi muy jeexee ci Fathu Makka foofa la taxaw di wax ak ñëpp di ko dégg kuffaaru Makka yëpp ñëw sukk jëbbali ci moom Serigne Touba yi yàlla def bis bii. ci la nattu bi tàmbali woon mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci Mbàkke Baari mu dem ngir liggéeyal Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ay at yu bëree bëri nag moo juge fa ba dem gànnaar ba jëm ba dem ci yéen ba ñëw njaareen ba am fa lu mat juróom-ñaari at ba 1918 ndax nattu bi daa def saa su waxtu bi accès lu ñu ko ma sante ci nattu rek bu del siwaatee ñu teg ko mbooleem lu ñu toll ci nattu ba ci at mujj fa nag sëriñ bi du ko fuglu ak di ko waajal suñ borom xamal ko ne nattu yi jeex na ak pay ci des ba adduna di tukki itam nan nattu yi daa demee rek pay gi ne lay demee saa su agsiwaatee luñ la masaan jox ci ci ci ci ci xéewal rek daañu la daañu la joxal lu ko ëpp kon bis boobee nag ci la Serigne Touba digle ci 1918 ci la xëy xam ne ne suñ borom xamal ko ne nattu bi jeex na bu agsiwaatee na ko ci ñëpp sant la yàlla. li tàmbalee ci ginaar ba ci gileem kon loolu mooy bis bii nga xam ne ci lañ tàbbi ba yàlla def mu mooy biss boo xam ne nag lépp lu ñu am rek ci lañ ko amee kon sëriñ bi ne mi ngi ci soññ bokki taalibe bi yëpp ñu gën koo fonk te xam ne boo xoolee ci mbindi sëriñ bi fu bari sëriñ bi wax na ko fa fustu la daa galwaa waa inda ba afali ma bihi uniru kulla ma afali ci la suñu borom leerale mboolem palaane palaane yëpp ci àdduna waxaat na it alaana lil quluba quluba wal abdaana man qaada fi fii baladil daana kon wane na ne màggal gi àdduna sëpp danañ ko ci aussi kon loola rek mooy li agsi nii kon sëriñ bi ne ngi ci soñ ñëpp ngir xam ne màggal gi moom borom defaral na ko boppam bërëb aajo ju fajo lu tàbbi ci biir ñaan ko nangu la na ko bëggee saa su agsi ndax waxoon na ne àjjana amuti bis waaye buñ demee ba ëllëg képp koo xam ne daa nga sonn ci sama bis bii ba si waatee da ngay xéwal guddal ko ci yow kon nag loolu lu ci waay def rek sabab mu koy defal kon nag ñu ngi ñaanalaat bu baax sëriñ bi mu yàgg fi lool te ànd ak ba yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéey sëriñ Tuubaa te itam jëpp weesu liggéey sëriñ Tuubaa loo ko mën a ñaan loolu loolu ngërëmu sëriñ Tuubaa doo dégg mu ne la amiin ngërëmu sëriñ Tuubaa rek ko kon nag ñu ngi koy ñaanal ngërëmu sëriñ Tuubaa loolu yi nga xam ne kenn nattablu ne am na ko yàlla na yàgg lool ci barke sëriñ ndax lu mu fi gën a yàgg rek mu nekk sagu yoonu murit lu mu fi gën a yàgg mu nekk sagu lislaam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسمني الله عند الجول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود الكدري